wala ko Ibrahima seen làkk wañ daan làkk mun leen xibaar leen ma yéenay ñan ak lan mooy seen mbir ndax man de seen mbir maa ngi koy nattale ñu ne ko ñun de aw gaay lañ yoo xamante ñu ngi bokk ci waa ay sàmm lañ it dañuy sàmm léegi di bekkoor bii moo nu jàpp ak xiif ñu ñëw fii di sàkku si ab dund mun leen yéen de bootul ay agent secret ngeen ay nit ngeen yoo xam dañ leen ebal ngeen di fi gëstu si ay mbir di xool si sama sama sama biir réew pour pour di ko leeral ay sérité ngeen daal ba wutul ñu ne ko déedéet wallaay giñ na ni ñun du ñuy sérité du ñuy agent secret ñun ay mbokk lañu yoo xamante ne ñu ñëpp benn ñoo ñoo bokk baay ay doomu baay la ñun ñëpp suñ baay kilifa gu mag la ab yonente la it ci yonente yàlla yi la bokk ñu di ko wax Yaqub Yuusuf ni leen yéen ñaata ngeen ñu ne ko fukk ak ñaar lañu woon waaye da cee am ku ku manqué ci noonu koo xamante dafa réer ba ko ci àll bi kooku nag moo gën a loon sun baay sun baay moom la gënoon a sopp ci noonu mun leen jamono bi ñu ñaata ngeen ñu ne ko fi ñu toll nii fukk rek lañ mun leen anaka ca des ñu ne ko kooka ma nga fa sun ndax mooy mbokkum ka faatu ka nga xamante ni daa réer ba xen xamatu ci moom dara mbokkam mi mbokkam ndey ak bàyyi moom la suñu bàyyi téye ngir di ko miisale kooke di ci miise kooka mun leen ana ku fi xam ni li ngeen di wax dëgg la wala du dëgg léegi loolu ban tegtal laa mën am ci ni yéen du ngeen ay agent secret li ngeen di wax dëgg la ñu ne ko noonu day ci am réew lañ nekk ñoo xam ni dëkk bii nu dikk fii muy Misra di wax dëgg kenn xamuñu fi mënuñu fi am benn seere mbaa benn tegtal Yuusuf ni leen mbokk moomu ngeen di wax ne am ngeen ko andil leen ma ko mooy fa tooni bi axikum allazi min abikum in kuntum saadiqin mbokk mi ngeen wax ne moom ngeen bokkal bàyyi te bokkut nga moom tey te seen bàyyi tey bu fekkee li ngeen di wax dëgg la leen ma ko ndax mooy li ma gënal ñu ne ko ah, loolu de dana tiirloo suñu bàyyi lool ndax moom de ba mbokkam moomee nangee faw réer ba léegi de nangu ta taxale ko moom ndax ci lay miise waaye nag danañ sàkku rek ba xam dana dana nu may loolu am déet suñ demee daal danañ ko sàkku ci moom mu ni leen bàyyi leen fi kenn ci yéen mu doon ak tayle ba bu ngeen ma indilee seen mbokk moomu ñu daal tegoo ay bant ci seen biir bant bi daal ci kaw ka ñuy wax samaoon mu ngi toog fa remplacé fa doon fa ak tayle ba ba ñuy mën a andi kañ soxla loolu moom la alxuraan di wax ni walamma jahhazahum bi jahaazihim qaala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarona anni ya oofil kayla wa ana xayrul munsilin mun leen ba mu leen waajalee ba noppi ni leen nag bu ngeen ma indilu seen mbokk moom ngeen bokkal bàyyi day doo ngeen fi jëlee ak natt ñu daal di dem sàkk ko ci seen baay ni ko kat ka natt kat wax na ne noonu na nga na nga yebal suñu mbokk mi de bu nu amee mu ànd ak ñun ñëw mbaa du nattal li nga xamante ne nattal na leen ba noppi nag ba bàyyi fa ak eh, kenn koo xamante ne moo fay wóor moo fay toog doonu tay la ba ba ñuy indi kam leen laaj bañ fa tegee seeni bagaas mu wax ka doon natt ni ko fabal seen li ñu indi woon nga xam ne ci nga war a jënde dund bi xaalis bi ñu la joxoon njëg gi na nga ko fab dugalaat ko ci biir mbuus yi nga xamante ni moom nga leen defal ñam wi li ñu war a lekk mu fab njëgu njëgu ñam wa dugalaat ko ci biir ñam wa takk ko ci saako yi tegal leen ko ci seen bagage bañ demee ci seen baay ñu ne ko day gis nañ fa ku baax koo xam ni wàccee nañ wàcc waay bu rafet teral nañu teraanga ju mat dafa mel ni sax bu doonoon kenn ci noon nga jur ko it day lam nu defal mënu koo weesu maanaam bu doonoon doomu yàqoo bi mënta weesu teraanga ji nu defal daal du ko du nu mën a teral teraanga ju ko weesu yo ba yàqoob ni leen kon bu ngeen dematee ci moom day na ngeen ma ko nuyul te na ngeen ko wax ni ko suñu bàyyi de mu ngi lay ñaanal ndax yiw gi nga nu defal ak teraanga ji nga nu defal daal di leen di wax ni leen nag ay na ana samoon seen bàyyi ni la ana samoon ñun ko ah, buur ba da ko fàttee ngir dafa wax ni Bunyamin mii day ñëw léegi ñu ni ko buñ demee danañ sàkku danañ sàkk danañ laaj suñu bàyyi mu boole nag moom mu ni da koy téye ba nga yebal Bunyamin bu noppi ñu wax ko xissa bi ni mu demee dal ak lam doon tiit ci lu nag yooyu ba tax na nee na wala mu mën a am yàqeen ci ñun dunu ay agent secret daal fokk suñu mbokk mii jógee Kanaan da ko yebal mu ànd ak ñun dem léegi nag moo tax mu téye Chamoun ni moom la fi def tayle ba Bunyamin teew ba noppi